ba Sénégalactu. salaamaaleykum Sénégal maa ngi bëgg ñëpp di bëgg patriote yëpp euh, di jaajëfal ñëpp euh, gars yi di wax ni euh, vraiment gis naa benn image boo vraiment man de ça me fait mal xaw ma nag yéen nan lay def vraiment parce que ku xam Jibi Gueye Ndiaye nu mu représenté ci biir Pastef ak fi mu jaar ak président Ousmane ak li nga xamante ni dund nañ ci biir Sénégal ki nga xamante mooy le ministre de l' intérieur justice Antoine Diome fu ak Sénégalais yi souffrance bi ñu dund barricades yi ñu dund manifestation yi ñu dee am Sénégal yi de A am na ci ñàkk am ñoo xamante ni que ñàkk nañu ci lu bëree bëri aujourd'hui tey mën nañ toog ni ci ci ci liggéey njaay di kottante Antoine Diome di xaxataay di reetaan di saafonte di ree mais non man de image bi man neexuma vraiment damay wax ne lu ma xalaat mais lii ma nag yéen ndax neex na leen wala neexu leen mais man de image bi man neexuma am na image yoo xamante ni dafay détruire am na image yoo xamante ni que kenn du ko toog instant bi di ko wan askan bi ñuy toog di ko di leen seetaan di leen xool ci xool tey ñi nga xamante ne ñàkk nañ doom ñu ñàkk si seen i alal ñu ñàkk seen lépp tey ngeen di toog di kottante di saafante di reetaan ma je suis pas d'accord ku xalaat démb xool li fi jaar waru noo fàtte tey lan moo nu war ak nu war a xaw ma nag lii nan ngeen ko tuddee